boo xoolee handicapé yooyu jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ci réew mi boo ko xoolee boo ko tënkee rek ci ñeenti point ñeenti jafe-jafe la bi ci njëkk mooy jafe-jafe yi ñuy am pour mën a faju li ñuy wax accès au service de santé pour mën a faju maanaam appareillage parce que wax handicapé wax beeke wax pousse-pousse wax kaan wax appareil orthopédique et cetera donc appareillage ak service de réadaptation ñaareelu jafe-jafe bi mooy jafe-jafe yi aju ci wàllu njàng mi parce que ñun ñëpp xam nañ ne suñu lekkool yi suñu établissement yi bi ñu leen di tabax di leen defar ca conception ba suur ñu woon ne sax dina am ay apprenants yoo xam ne dañuy amee laago mm-hmm. ensuite jàngalekat yi aussi dans leur curricula de formation mm-hmm. waajaluñu leen mm-hmm. pour ñu mën a jël en charge ay xale yoo xam ne dañoo am laago boo gënee poussé sax da ngay gis ni matériel didactique bi ñuy jëfandikoo sax souvent adapté wul ak yenn type de handicap parce que boo amee xale bu silmaxa ci ci classe soxlawul craie ak ardoise mm-hmm. ak libre parce que du gis du gis moom soxlawa craie mais am na beneen xeetu matériel boo xam ne mm-hmm. mooy remplacer loolu mm-hmm. loolu du loo xam ne lu disponible loolu yëpp donc dafay tax accès bi ñu am ci njàng mi day day jafe ensuite boo jógee foofu mu jëm ci jafe-jafe yi ñu am bu jëm ci wàllu liggéey alors Euh, ça c'est normal bu fekkee danga am ay jafe-jafe pour jàng école. jafe-jafe pour am formation. doo am métier. boo amul métier doo mën a liggéey. boo liggéeyul nag nekk Sénégal gi euh, métier yu bees yi ñun handicapés yi mënuñu ko def. Mm-hmm. métier yu bees yi mooy lan mooy jël gaal dem Espagne ñun on ne peut pas. <laughs> mënoo di mënoo di raam mënoo di raam. ci métier yu bees yi la ko waaw mënoo di raam wala nga yor sa yet dem du dugg gaal di dem Espagne mënuloo ko mënuloo nekk agresseur. mënuloo nekk mbër ci métier bees waaw mënoo nekk mbër aussi. waaw métier yi joxe. yooyu xam nga yooyu la yoo ne boo amul formation amoo dara jàngoo sax am doole boo demee entraîné mën ngaa bëri ji xëy na te boo amee formation am am na ay yoo xam ne am formation am diplôme justement du ñu am fu ñu liggéey donc loolu problème la mhm. donc et te loolu lan lay jur garaam mooy jur tey li nga gis Ndakaaru gis ci dëkk yu mag yi mooy xale yu bëri yu nekk en âge de production mhm. nekk ay handicapé di yalwaan mhm. moo xam góor moo xam jigéen mhm. ñooñu yalwaan boobu c'est pas toujours leur choix mais ça c'est c'est c'est le résultat d'une situation d'exclusion de fait dafa imposé wu ci ñoom parce que boo mënul dem école mënoo dem centre de formation doo mën a mé doo mën a am métier te doo mën a liggéey boo liggéeyul nag nekk handicapé tey amoo beneen alternative comme ni ma ko waxee yalwaan la mais c'est pas forcément leur choix bi si mujj mooy li ñuy wax aménagement du cadre de vie général. surtout ak accessibilité. surtout ñu commencé ci li Marc doon wax léegi. transport. Mm-hmm. aftu bi ngay wax. Dakar dem dikk dinaa si ñëw defoon nañ quelques efforts. car rapide yi peut-être BRT comme c'est des standards internationaux ak TER mun na nekk accessible. Mm-hmm. taxi yooyu yëpp booy xool. nekkul ay transport yoo xam ne adapté na ci ki nga xam ne dafa amee laaw bu ñu fàtte ni citoyen la ci dëkk bi la bokk dafa war a circuler au même titre que tout le monde tout à du dëgg mmh. mais boo demee ci réewu tubaab bi da gis ne ñoom rek leen nañ problème yooyu bu yàgg mmh. mais fii dafa des Dakar dem dikk effectivement ñun def nañ plaidoyer xam nañ ne am na ay efforts qui ont été faits dans certains bus boo xam ne wutal nañ leen rampe ba nga xam ne boo ñëwee mmh. di nga mën a di nga mën a dugg mais loolu dañ ko war a systématiser dans tous les transports publics nga génn foofu aménagement du cadre de vie ñi ngi defar comme ni ñu ko waxee euh, ginnaaw BRT yeeg TER yi ñu defar ay pont ñu defar ay autopont ñu defar ay autoroute et cetera mais war nañ bàyyi xel ni in euh, nu mu tudd infrastructure yooyu dañ ko pour nit ñi jëfandikoo la jëfandikoo ko la te ci biir nit ñi am na ci ñoo xam ne dañu am laago donc war nañ leen soo accessibilité barab yooyu. ndax am na lu ñuy wax norme architecturale. lépp lu ñuy tabax bu ñu respecté li ñuy wax norme architecturale du am problème. mais tey euh, système Maria demal euh, corniche bi fii. Ah. côté jun wala côté bi Radisson nekkee côté yooyu nga gis ku nekk ku yor pousse-pousse wala silmaxa bu yor kaan. mu war a jéggi jóge côté bi dem beneen côté bi rien n'a été prévu. mënul nekk. te pourtant nee nañ on a une belle corniche c'est vrai elle une corniche qui exclut une certaine catégorie de la population de la circulation sax ñemewu faa ah, jéggee man man ko man a fortiori ah. ku amee laago dëgg yàlla ñemewu ma ko et pourtant waroon nañ koo mën a parce que mën na nekk ndax ñu ngi koy def feneen bu ñu respecté woon norme architecturale donc ak yeneen ak yeneen loolu la ñuy wax aménagement du cadre de vie mm-hmm. général ba nga xam ni ki nga xam ni dafa amee laago dina mën a circuler dina mën a participer ci liy doxal société donc ñeenti jafe-jafe yooyu la ñu diagnostiqué